tey nag moom suñu woote tey euh, maanaam tey lañu am un an euh, at bi nga xam ne ne mooy at bi ñu neex bi ñu ubbee société bi ak léegi euh, mu nekk loo xam ne ne maanaam taw féex la amoon nañ événement bu mag nag bu ñu préparé woon tey mais dañoo am dese en face sama kër suma jarbaat sama rak suma xarit Eliman donc bi ma jógee Allemagne démb fekk fi loolu tiis woowu moo tax lépp lu ñu waroon a def dañ ko annulé may rafetlu tey aussi tamit nekk ak membre bi nga xam ne ne que mooy jëre studio ak jëre jërëjërë TV équipe bi yëpp di ko commencé par directeur euh, Ablaye Seck sama mag euh, moom lay teg nuyoo bi ci loxoom donc euh, vraiment yaa Omar Sow suma manager Sofia Dieng Euh, ñoom Kalaf élagement Hadj Malick euh, su ma limee jum euh, ñoom Kaaw Seck remercier aussi sama soxna ndax affaire bi yoon bi dafa métti trop maanaam ci bépp côté nag ah financièrement ak loo maanaam ñu bokk ndey ak baay ñun ñëpp ñooy añandoor ñooy reerandoor ñooy xam nga te ku ci nekk fii responsable nga kilifa nga donc ñoom it aussi maa ngi leen di beral mention spéciale ñi nga xam ne ne que mooy équipe bi màndal donc ndax liggéey bi su àggee fii rek ñoom la ñoom ñoo mën a am ay idée ay xalaat yu rafet maanaam gëm liggéey bi ba tey jii lépp lu ñu am tey dama naan grace à ñoom donc kon maa ngi leen di féliciter et di félicité aussi tamit remercier sama naataangoo samay mbokk journalistes yi presse bi yëpp nag ah ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi am jot parce que jamono bi euh, kenn amul jot donc maa ngi leen di remercier parce que woo leen ñu ñëw rek donc loolu dafa neex beneen bi ci tegu mooy sama côté ndeyjoor sama doom mu ngi fii sama taaw sama xarit Babacar Seck ma bokk ak papaam ndey ak baay e mu nekk ci sama wet fii e ma am kontaan dafa mel ni ne que famille bi yëpp a ngi fi parce que comme taaw moom dafa am solo donc moom mooy taaw papaam e mel na ne que famille bi yëpp a ngi fi tey euh, ma gëstuwaat pagaay mbay ma bokk ak yaayam ndey ak baay mu nekk jarbaat bu ma ñaanal jarbaat bu am cër jarbaat bu am respect aussi mu ngi fi teewee donc moom teeweel na fi ñëpp donc tey dama am kontaan dama kontaan vraiment ba nga xam ne ne que tey jii lii rek mooy àdduna li ñu taxoon a jóg mooy li may wax toujours rek bëgg a def vraiment def nañu et donc li ñu waroon a def tey suñu borom antuwu ko donc moo tax ma ne après dañuy. cancel annuler lépp ba prochaine fois donc ñuy ñaan yàlla suñu duggee ci ay at yi ñaan yàlla fekke ko ak ñun ñëpp yàlla def ñu feete ko ak yéen. waaw sant yàlla rek xam nga bon àdduna moom soo ci nekkee man dama naan lépp lu gën ci man rek yàlla na ko yàlla def lépp lu gënul ci man aussi yàlla bu ko suñu borom def sant yàlla mënul weesu single yi ñuy gën a dégg dégg actuellement fii ci Sénégal ak international bi donc yi ci gën a dox fii lañ ko defee donc lu mel ni Sidi Diop ah Bass Thioung ah Pape Diouf bi donc bari na pas mal góor gi Ndiaye pas mal de artistes yoo xam ne ñu ngi fiy jaar donc et yaakaar naa ne que dañ fay fekk benn qualité bu tax ñu war a mën a xool exactement par rapport seen carrière fi mën a dem donc je pense dama koy wax tout le temps dama naan kenn ñëwul rek maanaam pour lu neex baakan donc ku ñëw ci bërëb bi rek c'est parce que da nga fay fekk qualité bi nga xam ne ne que maanaam qualité bu bu jaar yoon la donc ci di profito di remercier ku mel ni Ousin Ndoye donc moom moo nekk ci wàll parce que nit ku ci nekk dafam am sa domaine côté studio bi moom moo fi ne donc moom moo xam exactement li nga xam ne ne que su ko defee moom par rapport ak carrière am dina ko réussir te ñun avant ñuy bokk ci musique sax ñun avant ñuy def musique moom yàgg na ko réussir ku nekkoon studio 2000 boobu studio Afrique benn presque mën nañ ne studio 2000 moo fi nekkoon ba yàlla def tey mu ko donc sant yàlla la li ma naan maak samay naataangoo yi yor studio yëpp donc li may ñaanal sama bopp laa leen di ñaanal ndax li may wax li ma gëm la yàlla ñëpp doxle et man mënumaa lekk lu dul sama wërsëg ñoom aussi mënuñoo lekk lu dul seen wërsëg donc moo tax vraiment bilan bi ñu am vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax le fait que gars yëpp di bëgg a ñëw ci studio bi léeg dañuy fuul sax ba duñ mën a def lépp euh, côté bon côté lu mel ni côté kër maam Serigne Touba suñu wasila la ku mel ni kër maam Alaaji Malick wala kër Baye Niass wala Yoff Laayeen wala feneen aussi bari na ñoo xam ne ñu ngi fiy jaar ay tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy def loo xam ne ne ñu ngi ciy gis seen bopp donc je pense que loolu moom moo amoon solo ci li ngay def parce que sooy def rek nit ñi di ñëw c'est parce que li ngay def am na qualité donc te yéen ñi fiy ñëw aussi tamit comme xam ngeen parce que mënu ma leen gumbawuñu ñun ñëpp donc ñun ñëpp ay liggéeykat lañ te dañuy xooslu rek comme ni ko mag ñi di waxee dañuy góor góorgóorlu donc euh, loolu côté boobu ñu ngi ciy sant yàlla. mën xam euh, waaw xam nga dëkkandoor àq la dèjà man dèjà tout le temps heure bu may tëdd dama naan sama waa kër vraiment damay jéggalu samay dëkkandoor par rapport su enregistrement amee da ngay gis oto yi ni ñuy baree ak bi ñun musiciens yi ni ñuy café suñuy kii ak yooyu xam nga koñ bi doo nit borom kër léeg-léeg borom kër ñëw sa buntu kër sax nga bëgg a gaare doo am foo gaare fekk te ñi gaare ñu ngi ci biir studio bi ñu comprendre loolu je pense que ne ne que loolu moom mooy famille famille mooy ki nga xam ne ne que da ngeen a dëkk te doo leen tàqaloo donc tonton Sarr moom moo ñu dalal fii maanaam man bi may jënd fii moom laa fi fekk donc eh, ba yàlla def tey jii doomam génn àdduna donc te doomam bu ma respecté la te bokk na ci ñi ma mujj waxal bi may tukki barki dem di dem Allemagne pour di jour dama gëstu yem ci moom ne ko Ilimaan mu ne ma ne ko bien vrai que baa ngi fi mais kër gaa ngi noonu donc kër gi seen kër la dénk naa la kër gi quoi donc parce que mu dem na moo samay doom ñoom kaaw ak yooyu ay xarit lañ dañoo dem ba mooy loolu quoi donc lu mel noonu mënul am fii donc ñu yëngal dara donc côté art tey ji heure bi waroon na fekk Babacar gaare loo xam ne mooy loolu parce que moo waroon na tëgg tey taani gi ci rond point bi ñu may jigéen yi yoo fi yeeg yëpp xam nga donc ñu kaf foore xam nga donc mel ni pagaay xam nga waroon na def live xam nga donc ku mel ni akasa ku mel ni ñoom Alé Mboup ak sama yeneen xarit yoo xam ne ne que maanaam ñi fi nekk donc buggoon nañ def leen loo xam ne mooy loolu donc moo tax comme yàlla nag moom mooy dogal yàlla moom moo xàcce donc dañu ñun dañoo gëm yàlla ba lépp lu ñu yàlla teg rek nan naan lii moo gën ci ñun. Euh, ba loolu ma sànq wax ko au travail moom dañ koy apprécier à sa juste valeur statistiques yaa ngi sa soit sur YouTube ak plateforme yëpp képp koo liggéeyal rek gis nañ ne chiffres yi macha allah mais ni nga ni bi ngay lancé affaire bi da nga defoon benn appel artistes yëpp dañ ko personnalisé dañ ko defee foofu ñi te famille tel la wala ñii ñoo ko moom nekk ku ne mën ci gis boppam loolu appel boobu bi ko defee ak tey donc dafa mel ni bari bari boobu noonu c'est réussi ndax wuyu suñu yi dégg nañ waaw de toute façon xam nga nit ku ci nekk xam nga comme li nga wax c'est important nopp aussi tamit ak xel dégg rek la laaj ah donc man mënoon naa jël sama xaalis ma def ko ci leneen lu ñàkk fayda eh, mais defuma ko dañuy essayer mënuma comme sama waxu mooy sama waxu tey man mënuma yàlla rek moo man te eh, dama faral damay faral di wax benn wax boo xam ne lu ma gëm la dama naan nit ki ñëw di liggéey yow nga koy fay fin du mois sax doo kilifaam kilifaam nga ci côté li leen yàlla boole ci côté liggéey bi mais su duggee biir këram kilifa la comme yow et donc man investir naa am na ay employés yi fu ne di liggéey gëm nekk ay kilifa comme man donc je pense que ne ne mooy li wax sànq am na ñoom lu ñu xam man lu ma xamut parce que société noonu lay demee ku nekk da nga koy jox li mu moom vraiment pour yàlla jàppale la ci. ñun nag ñu ngi dund loolu ñu ngi dund en famille ñun dañuy dund comme ñu bokk ndey ak baay donc sama mag yi xam na loolu euh, sama manager xam na loolu ñi fi nekk ñëpp xam nañ ne que man dund ma loolu man dama bëgg a dund taalibe moo tax ma lancé appel bi ma lancé nag ñun lii suñu waar ñu ngi koy def parce que euh, te jii mënatoo wax musique sénégalais te doo ci tudd ku mel ni Pape jouf ah ku mel ni ci Sidi Diop ku mel ni Thiat Seck ku mel ni góor gi njaay ku mel ni Ami Collé Dieng ku mel ni bari na su ma naroon lim tey ñoo xam ne ne que jaar nañ fi xam nga donc yoo xam ne ne single yooyu yëpp fii lañ ko defee am na ñu fi nekk di def seen i euh, seen i album ku mel ni Arsal euh, ah donc ak kan euh, ah waaw Bastoum donc ñoom ñëpp fi lañ defee macha allah Ngone Ndiaye géwél aussi ñun ñoo ko produit xam nga donc Ibra Naajo xam nga donc yooyu produit yoo xam ne da lay wóor na ne que mu ngi marché donc kon vraiment loolu doy na sant yàlla sama waxu démb aussi mooy sama waxu tey ubbil nañ ñëpp porte yi nañ ñëpp bunt yi aussi ku ñëw aussi tamit dañuy xam ne ne que ñëw nga li ma naan ku dem beneen studio tamit dafay mel ni ne que yaa ngi ci sama studio parce que maag ñeneen ñi ñëpp benn la ñu am donc kenn ku ci nekk li nga war a def rek ngay def kenn ku ci nekk li nga war a lekk ngay lekk kenn ku ci nekk ne noo lekk ba lekk wërsëgu doomu aadama donc moo tax côté boobu moom man ak sama conscience dama ci tranquille saa ne